salaamaaleykum mbokk auditeurs yi ni ñu ko baaxoo def ay bés bu ne waxtu bi jotee di leen seen émission Sud FM jagleel di kaaraange yoon kaaraange yoon ñu ko def teewaay Matar Diop révolutionnaire di syndicaliste président national union boole jubanti transport ni ñu ko baaxoo def ay bés bu nekk ñu bàyyi Matar euh, mu nekk mbokk auditeurs yi dalal ñu door a ñëw ci waxtaan bi tey moom Poussin la. Ah, salaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakatu ñoo sant yàlla di julli ci yonent di ñaan yàlla seex. Mountakha Mbacké yàlla na ko fi yàlla yàggal te mu ànd ko wér. di nuyu nag suñu mbokki transporteurs yi ak suñu mbokki chauffeurs yi leen soñ ci seen émission bi ñu tuddee Kaaraange Yoon. Mhm. Kaaraange Yoon émission la boo nga xam ne dafa laaj su waxtu bi jotee ñu jël rajo bi taaj ci digg ëtt bi woo jamono ji ñuy déglu ko. Mhm. ndax émission bi dina jëriñ kuy xëcc dina jëriñ kuy puus dina jëriñ kuy dawal te képp ku ko déglu di nga ci gis sa bopp. jërëjëf euh, Matar tey nag moom li ñuy fas yéene waxtaanee moom euh, dañuy ñëw ci li nga xam ne moo lëmbe réew mi Dakar sax surtout mais kenn mootul dem kenn mu dellu si muy embouteillage euh, lan moo ko waral feu yi moo doxul alkaati yi ñoo doyul oto yi ñoo bëri wala tali yi ñoo xat dañ ci dellu si parce que man xaw ma lan la war a mën a doon te oto yi kenn dem benn demul dem dikkul mais balaa ñu ci ñëw loolu dañ dugg ci période boo xam ne ne dañuy ñëw di waajal nawet bi te am na ñu njort ne ren incha allah ndox mi dina bëri loolu lañ am yaakaar. xaw ma nag fu ñu ko teg mais tamit ñi ko xam ne ne seen xal màcc na ci loolu xamal nañu ne ndox mi am nañ yaakaar ne dina bëri te bu bëri nag am loraange boo xam dina ko def te am na ñoo xam ne dañ dëkk ci bi di ci liggéey ñoo xam ne tamit euh, ay voiture la comme ngeen koy waxee dañuy euh, dawal am ñoo xam tam ba ñu amee permis léegi ndox mu wàccul donc ndox bi di ñëw mooy seen premier ndox te dafa am noo xam ne moom la ñuy dawale ci nawet. am na lu bëri loo xam ne da nga ko war a waajal yéen ñi nga xam ne ne yéen ay professionnel ngeen am ngeen expérience boo xam ne mu jëm ci transport dawal ci noor ak nawet mais tali bu fekkente ne ndox da ci wàcc dafa am nu mu bindoo parce que bu wooyee huile laa ngi ci mais bu fekkente ne dafa taw huile bi ak ndox mi dina jaxasoo te def naa ne dina am lu muy def ci pneu yi loolu moo waral ñu war a mën a xool pneu yi pneu yi nag euh, lu am solo la ci dawal. xam nga maa ngi doon wax bu le passé ne ñu ngi ubbi interurbain bi toog na ñaari weer wala lu ko teg oto yi damu dawuñu te ci sécurité la oto yi toog war nañu xoolaat pneu yi parce que dem naa dina dem benn instant boo xam ne booy dawal mën na éclater te mën na mën na am lor yu bëri yoo xam ne dina ko def vérifier itam essuie-glace yi essuie-glace yi xool ndax bale mi ngi fonctionner normalement bu fekkente ne def nga ci ndox dem seet ndax am na côté boo xam ne dina bàyyi ndox war nga changer ko seeru ñu changé ko pour sécurité euh, wax naa léegi yëpp nay waxtaan ci éclairage bi nga xool ci feu de parce que bu fekkente ne dafay taw dina xaw am laay yi te oto bi nekk sa ginnaaw booy stoppé il faut que mu tàkk pour mu xam ndax ndax euh, ndax euh, taxaw nga pour mën la éviter wala ak feu de croisement yoo xam ne ne dañ ko mën a taal pour oto yi nga xam ne dañuy jàkkaarloog yow parce que dañu éviter aussi di dawal ak faar. parce que boo buy taw nga taw nga def faar di nga éblouir ki nga xam ne moo jàkkaarloog yow du gis te bu mënul dem ci mboy bi rek sa kaw la jëm donc li nga wóor ban ut dina dina dina ñëw fekk si la mu nekk jëyee nu xool tam parabrise yi parabrise yu fel la wala yi nga xam ne dañ koy jël éviter di def comme ni ñoom mataar di def di jënd sople di ko ci xoos pour mu gën a leer je pense que loolu tam war nañ ko mën éviter bu fekkente ne doole gi may na xam naa dina jafe toog mais ñu jëm a seet ndax mën am pare-brise yu baax yi na sax yu fell yi mën na nekk mais yi nga xam ne da nga foo war nañ ko mën changer te am na façon bu ñuy dawale aussi tamit ci nawet bu fekkente ne ndox na ba wàcc nga mën a réduire sa vitesse euh, bu fekkente ne daf la fekk ci àll bi ñu jéem bañ a seeru ci garab parce que foudre bi moo tax euh, bu fekkente ne dafa xiin te mu wóor na ne ba nga dëkk ak dëkk balaa nga fay yegg gaar demal ci gaar nga gaaree foofu ba taw bi waaye ñaan ñu ko ma door ci je pense que euh, waxuma lépp nag dama ci wax nii rek pour door a ñëw ci loolu nga mataar nga ñëw yegg ci am na tamit ñoo xam ñi ngi déglu seen xam-xam màcc na ci loolu loolu lool ñoom tam dañu ñëw baaxee ñu li nga xam ne mooy conseil pour ñu baaxante ko parce que mën naa ci jëriñu yéen tam ngeen jëriñu ci buñ ci jugee loolu dañu door a ñëw ci embouteillage bi parce que tamit kenn demul kenn dikkul mataar waaw jërëjëf Thionga ah, daanaka nag ñëw na ci waxtoom ndax nawetu Sénégal nawetu li ëpp Sénégal fin juin jëm juillet ci la daan départ nawet nag lu ñuy waajal la waajtaay woo nga xam ni bu série lañ ci war a def rawat na nag man bale wax sama mbokk yi daw urbain inter urbain bi laay jëkk wax congaan xam nga bu nawet daan jub si entretien de daf doon am bépp pax bu nekk kaw tali bi ñu essayé ko sàkk pour am yu ñu invité xam nga tali bu commencé dalul ay ndox donte taw bi bariwul du too gis kàmb te oto dal ci kàmb drapé dem da koo yomb surtout ab taw ndax bu glissé pneu yi day tooy doo ko freiné day ànd ak moom dem surtout bu sarcé sarcement bi day jëkk yóbbu kon nañu jëkk conseillé suñu mbokk yi daw ci indi urbain bi fu mu commencé tawe lillaahi wa rasuul nañ gaare oto mhm. képp ku dem yaa ngi ci danger mhm. parce que amul benn tali bu am entretien fi mu nekk partout du jëm Ndar du bi jëm Touba du bi jëm Linguère du bi jëm Casamance du bi jëm Tamba yépp am yépp fu pax nekkoon pax maa ngi fa amul ñu changé entretien boobu amut moom lañ di ñaan daal yéen ku sarse ku nekk ba muy taw fu mu nekk rek nga wàcc tali bi gaare ji bu dee guddi soo wàccee tali bi na nga taal say feu de position ñu tàkk ndax oto boo fayee lépp guddi muy taw ki topp sa ginnaaw bu ñëw ak lumière gis-gisam du sori. ñuy def détresse bu taxawee. mun na ñëw waaw mun na ñëw ba egsi sa ko du koy même soo taalee feu de position yi mu tàkk rek ndànk du du même bu ñëwee bu ko jubee day xonk fa mu seen ko. ndax taw moo demee noonu lu ci xooy rek di ko seen ñuy pan guddi it moonte ay panneau de signalisation ci seen seen seen kanam ginnaaw oto ak kanam oto yi oto mënoo koo yor di fàq ay pën ak ak a fàqum geer ak a tegi a man semaine bii passé rek ñëw naa virage bii ci Padois camion fi pan pën camion la jël teg ko ci kaw virage bi mooy virage bi nga xam ne da ngay yéeg rek boo jógee Grand Yoff tourné waat jëm Pikine xam nga fi ma la ci kaw montagne mm-hmm. mu teg pën ci kaw man bu fekkoon ni def ma woon faar du ma woon gis pneu bi mais dama yëg rek dóor faar gis pneu bi bi ma ko fentee biir na ma a man oto dinañ dal waa ji fi dara te xoolal congaan panneau de euh, triangle présignalisation motul 3000 ñaar yi. Mhm. nga rey ci ay nit. faat ci ay bakkan lépp suñu état toog di seetaan ñooñu ñu koy def gis nga waa ji fa mu defee loolu normalement gendarmerie police waroon nañu am numéro vert boo nga xam ne soo defee lu mel automatiquement ñu te ñu ñoo fekk la fa jàpp la même bu ñu la ko sampalee ba noppi ba ba ba protéger la ba nga defar ba noppi ñu conduire la yóbbu la directement nga fay contravention bi bu retiré daal retiré sa permis ñu retiré ko yóbbu ko commission loolu moo waroon am mais nag malheureusement doo gis ko toppatoo. waaw ñoo ci conseil. tali bi amul ndey ak bàyyi. Hmm. tali bi nga gis ni ñu koy daggee fi mu nekk nii. nan nan la ñuy waajalee oto bi oto bi ci boppam xam nga wax leen tali bi xëy na tali bu fekkente ne li wax léegi oto bu paan bi. ndox mi ko fekkee day day glissé te frein yi du jàpp noonu parce que day ñëw dem bu fekkee na nga ñëw xel mais quand même oto bi war nañ ko préparer nawet parce que ni ñu dawalee nawet noor du noonu la ñuy nawet. waaw foofu laa ne kon ndax xam nga ci pneu yi lañ déparé. Mhm. te oto benn benn organe rek yoru ko ndax li pneu di di am am solo appareil euh, balai essuie-glace yi daf ci am solo. Mhm. te bale yoo xëy da ko monter six mois wala un an ak tàngaay bi Sénégal am muy tegu ci kaw bi. maanaam kaw su bi ci kaw bare bi day dee balaa nawet bee jot premier nawet boo ko dóoree rek kaw su bi da lay romb weñu kese moo fay des dina dina fomp mais set pare-brise bi day lëndëm su ko defee nag loolu nañ ko waajal ñu jël bale yi changé ko. Hmm. seerul tamit. seerul baax na que motul cinq mille francs li ma la bëgg a wax rek foofu laa bëgg a dem. Hmm. bu ñu nee urgence sax motul cinq mille francs. Hmm. kon ñu teel a changé bale yi defar ko xool appareil bi ba xam mi ngi dox ndax appareil waroon ne ba nawet nga di ko testé. man nga ko testé fekk mu bloqué ndax poussière bi am Sénégal day bloqué ay appareil foofu boo salte duggee du tourné. Mhm. kon war nañ def entretien balaa oto bi di tawlu. li nga wax léegi ci pare bi suñu mbokk yi nga ne dañuy wut lan soble. soble lañ ci def de te xoos. soble du pour du pour euh, mu set déedéet dañ ko def pour ndox mi buy daw bu dalee ci parabise brise bi mañ faa bañ a taxaw fekk bala yi di xut loolu moo tax ñu naan soble day am. li bu ci nekk boo xam ne solo bi su ci ndox mi dalee day gaaw wàcc xam nga nit bu fekkente bi oto amul climatiseur booy daw nawet soo yëgalee euh, balay. bëggoon naa ñëw ci côté boobu aussi. soo yëgalee balay soo amul climatiseur boo yëgalee balay pare-brise bi day weex si biir. Mm-hmm, mm-hmm. doo gis. loolu laa bëggoon xam ban solution lañu am pour loolu. parce que parce oto yi dañ doon am aération boo xam ne bu bu buy taw da ngay taal aération muy upp biir pare-brise bi mu man di feeñ di nga man di gis comme du gis nag bu ñu tëj weer yi mu sës. dañ koy bàyyi espace boobu mais oto yu bees am nañ ko quand même. waaw d' accord mais oto yu màggat moo ëpp Sénégal comme oto yu màggat moo fi ëpp te lii roñ nit ñi oto yu màggat lañ ñun ñooñu la ñuy waxal ba noppi ndax oto bees moom congaan rek ku mën a am ak gaay yi nga xam ne ñoom sës nañ ci yëf yi ak soosee gaay yooyu ñun nag mën na ko am noonu ay màggat oto lañ mën a am. sant yàlla. waaw léegi nag ñun li ñu mën a am lan wax nañ ko defar. Hmm. oto bi yëpp juróom-benn fukki nit yëpp ay juróom-ñaar fukki nit ñi yëpp ñeent fukki nit ñi ñaar fukk ak juróom ñoom lañu war a waxal hmm. parce que ñun mu ñuy dem kenn lañu doon wala ñaar ñee nag mbooloo la ñuy àndal bu jëyee amee fu lay ëppee kenn ñaanu ko yàlla mais bu des bu accident amee rek lay lay gaañu lay dee foofu lay ëpp gën a bare. pour accident bañ am. mënta ñàkk waaye mu mu mu bañ a bari ba noppi te bañ a métti accident moom bu du am kenn fay assurance ci oto dara taxut ñu du ko fay xam ne accident day am obligatoirement tubaab bi liggéey oto sax xam ne accident dina am moo tax mu def ci assurance invité ko kay ba wala croissance mbaa soog bu néew. ba ay mortel man cee bañ am loolu la ñuy ñaan yàlla mais accident moom day am. comme comme que da nga wax ne accident moom la ñu ñàkk. waaw parce que njuum tey tax te doomu aadama dafa gaaw ci juum. nañu fagaru ci assurance bu nekk en règle ak visite technique parce que tamit bu fekkente ne am nga accrochage parce que du ñàkk def nga da ngay da ngay perte pratiquement te yaay mujj jël à sa bopp en charge je pense waaw continuer. ba foofu it leeralal ko gars yi perte du am même oto bi accidenté te amul assurance fond de garantie oto bi da koy jël en charge mais bu paree day toppee borom oto bi nga xëy amul assurance. même bu dee nit ki dañ koy faj. waxuma waxuma corporate. même bu dee oto bi waxuma corporate. même bu dee oto bi daa mbëkkanteeg oto ki mu mbëkk yàqul te moom amul assurance dañuy fay kooku ba noppi dem toppi borom oto bi ñëw. mais yow nooy def. ah yow nooy def. kan ci. borom oto bi yow sa oto nooy def. yow da ngay perte yow. waaw justement bu fekkente ne dañ la tooñ te rek amul assurance. ba noppi fayu la. waaw ah waaw day métti mais loolu laa la wax moo tax la ñun nag suñu ñun suñu assurance yii dama lay wax ni la xam ne dama ko ci jaar parenthèse assurance yi ko war a am visite technique war a yooyu faaw ñu am ko nu mën a demee tam nañ aw loolu ñu continuer euh, xam ne dañuy oto dañ koy wër dañuy mag ñi dañ daan wax ne boo yeewoo suba teel tal oto bi da ngay wër wala nga am ko loo xoolal seen ndax lamp yëpp a ngi tàkk donc def loolu am solo la. xam nga li wax mooy fu ñu jàngee oto. Sénégal njàngum oto moo fi amatul congaan oto ku xëy rek fekk ko mu taxaw nga jóge sa kër waaxu nit te jël punt bi yëg rek ne noonu coussin bi démarré départ war nga xam ne foofu njàngum oto amu fi oto bi fi nga ko gaar rek paan mën na ko fay fekk. Mhm. mën ngaa dawal oto du paan dara nga gaar ko mu paan fekk ko. fil bi sax mën na waaj mën na mën na tuuru. mën na tuuru foofu ba jeex. Mhm. liquide bi mën na am fu mu jaar bi ngay gaar jeexut mu jeex tàkk. Mhm. ndox mi mën na am fonkoy seet na fa ba jeex tàkk te yëgoo ko boo demee loolu yëpp soo fekkee ne ubbi woo ko nga xool ko amu ci loo xëy mënu laa mënu laa andi jiyee ndax nit dafa wërta amul loo war a waaxu rek jëm rek waaxu dugg ci nekk sax boo ci dugg war ngaa yëg lu waxuma oto ñoom nag oto duñ ci yëg noonu te ñoom daal ak weñ la goo xëy saa ñu ko bëggee utiliser utiliser ko suñu soxlaa dem sànni teg fee te loolu tax ko woon jóg nit ñi nag dañoo oto ñàkk jàng oto gi moo nu oral problème yi am na di ko am dawal amatu fi nu neex waaye lay dawal ci kaw tali bi tali bi it amul borom fi ne nii kenn du yar kenn kenn ku ne sa poos nga gàddu defe ngay loo defee. boo joxee xaalis mais am nga occasion aussi tam pour fàttali leen li nga xam ne moom la ñu war a def xam nga loolu lu nga wax léegi. Mhm. wër oto bi ki nga xamul woon dina ko xam. ki nga xam ne xamoon na ko. daal sonde huile bi xool ndox mi. xool liquide bi. lépp marché. Hmm. boo déparé ba noppi bala ngaa def dara di taal oto bi war nga bës embrayage oto bi. nga dugg ci biir oto bi wax kenn ku xool la ci ginnaaw ndax sa feuille ngi war nga bës embrayage oto bi xool vitesse ba xam mi ngi dox wala doxul. signalé gauche doog a pay mor doog koo taal. signalé droite. waaw soo ko taalee nag doo ko def doo ko seet nooy def pour départ dem. Hmm. sooy dem nag nga xam ni. li nga war ak weñ la te yow mi ci toog aw yàpp nga ak ki weex mhm. nga xam bu baax ni sa ruuc ci loolu la nekk mhm, mhm. boo def def loolu nag oto moom mën si réer amul pardon loolu yëpp bu dee ci nawet la bu dee am amoo pexe waaw nga dem mais bu fekkente ne am nga pexe xiin na xam ne taw bi la fay xaaral ba fandi non loolu moom wax naa fii de nga taw moom waaw képp ku la ne maa ngi daw ci taw mi ngi risqué fii yam mënees su ko dawalaale ndax da li ngay dawalaale da ngay gis taw bu xësee bari pare-brise bi li ndox mi di yóbbu bu ko yóbboo bu ñëwaat day fekk trapèze bi diggante boobu la dem na munoo gis 4 mètre 5 ci sa kanam. Mm-hmm. surtout ndox bu bëree. soo ko bëggee boole daw ay xel nag. Mm-hmm. lay dal sa kaw wala yow la nga dal ci kawam doo ko gis. Mm-hmm. su ko defee nag jëye am man nga cee loru mën ngaa lore. kon nañu moytu tax yonent bi daf ni danan waraat daanan bul loru bul looy. kon nañ ñaan yàlla bañ a loru te ñaan yàlla bañ a lore. loolu ñuy wax léegi aussi réduire bu fekkee da ngay daw bu daf la fekk ci àll bi éviter leen nekk ci taatu garab. parce que foudre mën na leen fa fekk. dañoo jëm seen bopp te bu njëkk it sunu président bi dañ doon sensibiliser nit ñi ci yu mel noonu. dañu doon ñu arrêté nga xool ñu wër oto bi gis ci ay def ñun la sawaay ñun naa ñun. nangam na ko def. xool bi li sa pneu yi mun dem nawet. xool sa pare bala yi ne bala yi baaxut nga taal lumière di ñëw mun la sa lumière yi baaxut parce que doo gis xam nga bool bu xongee lëndëm soo taalee faar muy taw tamit du tax nga gis. Mhm. même boo dawee ay code tax nga gis mën la boor yi sensé ko parce que du boor yu baax léegi nag sensibilisation boobu amatul léegi. mais xam nga li ñuy wax ni clients yi aussi tamit lañ koy war a wax gis nga oto balaa nga ci dugg sur transport wëral oto bi xool pneu yi na bu ci dugg. non xam nga congaan client mënul loolu. déedéet ci man am tuuti lu ma lay wax xam nga oto bi daw guddi nga jëm Thiès wala Ndar wala Tivaouane oto mun la Ndar wala mun la Tivaouane te loo faa xooli pneu foo yéeg ngay xool. Euh, man yow bi moom oto bi. yaa ko war a jëkk def entretien. boo dul chauffeur bi boo dee chauffeur moom moo ko sa bopp na nga xam ne sa alal nga yor. nga jëkk ci xam nga man. sécurité routière laay wax. waaw lan la mën a sauver nit bu fekkente ne borom oto bi ko changer yow mi ci dugg sa bopp boo xoolee pneu mu usé te xam ne ne danga ne pas en sécurité beneen loolu moom foofu laay taxaw képp koo xam ne mën na déggee loolu boo gisee oto boo xam ne dafa usé complètement pneu weñ di génn bu ci dugg yow kay li nga wax ne daa ci ànd ak yow. waaw kon jërëjëf war a xam ni phénomène transport bi am Sénégal. Hmm. li ministre ministre Omar Youm ni amul ci fer benn réew. parce que danoo toog keroog mu ni ma ma ne ko monsieur le ministre mu ne ma ne ko yow dafa am kàddu goo goo ma wax léegi mu xaw ma jaaxal trop ma bëgg nga leeral ko sama bopp. oto yëpp da nañ jël seen i yam nombre bi ñu doon yem. taxi yi ngay wàññi benn ci ñoom. taxi daa bokkul ci transport Sénégal. am daa mu la def wala daa am lu mu mu ne ma non taxi Sénégal kese ngay fekk mu yeb quatre amu ci benn réew ma ne ko li nga wax ànd naa ci ak yow waaye dafa am loo xëy amu ci benn réew mu ne ma lan la ma ne ko Njaga Njaay bu doon yëpp ay carton ki bagage ñu dagal ko ñeent fukki place mu yëpp ay nit tungoon ko dëkk ba dëkk bi daw ak i bagage fii la ma sa amee kon boo leen delloo ñeent fukki place taxi waroo dindi benn taxi ëpp sécurité Njaga Njaay bàyyi ñoom ñu dem liggéey te taxi loi la te lii nga def ab arrêté la te arrêté mënut waaw man de d' accord naa ak ministre bi ci côté. même boo ca bu ko alkaati bi te loi arrêté man de na fexe ba bu dee moom man du en tout cas daal dul mënal képp koo xam ne dégg nga Matar li dëgg laa wax balaa ñu lay wallu nga sonn. balaa tax nag ngeen ju bañ. man kay sant ma ko ku ko man ku ko man laa wax la. ku ko man. doo ko mën na nga bañ ko nga nangu teel nangu. yow doo ko def doo ko ba pare ko sant keneen. man doo ko def su ma yab dama ko yeb. man nag maa ngi sama sécurité nii bëgguma ko parce que ba mu koy santaane booba Covid 19 bi dafa dugg Sénégal mu ñaan ñu ko ñëpp mayandoo. xam nga da wax da wax nit wax bagage. waaw bagage feebar bi yoonam nekku ci nit la bagage euh, la feebar di wàll. ban bagage donc da wax léegi ne Ndiaga Ndiaye bu fees def ay bagage loolu wax léegi amal na ni Ndiaga Ndiaye yu daan yëpp ay bagage ca Europe masul yem nit Ndiaga Ndiaye kenn liggéeyu ko pour yebi nit indi ko importé ko indi ko Sénégal ñu dem ci tëgg ya ñu formel ko ñeent fukki ban ak ñaar teg ci ay nit di daj ko dëkk ba dëkk Sénégal gii la am kon boo ko nangulee ñeent fukki nit ak nangam a nangul taxi ñeenti place parce que la wàccaale ba noppi fay assurance te taxe yi la ci Sénégal te taxe yi ministre bi daf ko négligé ci Sénégal. taxe brousse. ministre temps ko laal na dafa négligé taxe ci Sénégal. taxe brousse. genre camionnette la 404 dañuy chargé ba di biir di def à l'origine c'était pas pour ça te li daal yeneen pays ñu ngi koy def. voilà ba fii xam nga xam nga Sénégal rek laa gis ñu ne dama lay defal lii pour sa wér-gu-yaram nga ne non non c'est-à-dire que li ñu contesté dafa bëri situation moo tax ñu wax. nga balaa nga naam naam ne yow nga dagg ak gëlëgëlë goo nga xam ne daawul yem nit nga yeb ci fukki nit ak nit. ci gëlëgëlë du du thème ah, ah, euh, a ñëw ci antenne mais du thème bi ñu jël auditeur salaamaaleykum. waaleykum salaam. Thiongaan. waa Thiamène la de sal El Hadj Malick Malick. àggal ca yoonu bon waaye day <laughs> ca àgg. déet moom ah, nawet bi ñëw de. ah nawet bi de ñun bu ñëwee moom noor baa ci ñun yoonu bon yoonu bon rek la kooku moom ñun ñun moom fan nekkoon noo dégg naa président mu ngi leen di waajal dara dañ tali boobu. de maa congaan congaan te nga <laughs> bañ bañ maa jooyloo wala nga yëngal sama xol lim yëngu doyut nag. déet attention mën naa am information bu amul de. waaw boo ko amee nga denc ko ba ma gis ko. Ah. man information laa soxlaa tut gis laa soxla. incha allah nag léegi mu ñëw. génn caameen ñëw ci tali bi signalé droite jëm daara daw ba daara mu baax. tënd jëfandikoo wala ma génn caameen ñëw ci tali bi signalé gauche daw ba Louga mu baax loolu laa gëm. tàmbali nañ ko xaaj na xaaju tuutee des gëmuma ko. Mhm. d' accord. waaw d' accord nañu xam naa ne moom. ah kon. kon baax na léegi mu baax incha allah yow la ñuy déglu. foo bë foo bëgg nu waxtaanee fa ci taxi masaar yi wala ci. dëkk bi wala yow daal bunte yu bëri na foo bëgg soo neex dugal Malick. non non nan ta ci taxi yi ak ministre bi ki nga Matar. waaw xam nga yéen itam da ngeen a xaw a doy waar tuuti xam nga lu tax. nun hmm. euh, dañ ñoo jàngal ne. Euh, xuloo ku waaye di moo koy def. Hmm. waaye jàng tontu day farata. Hmm. yéen boo leen demee ba mën a toog ak ministre bi wax amu wax mu ne leen ñetti nit laa laaj ci taxi ngeen ne ko lu tax ngeen bàyyi ñee ñuy jël ba matal nun ngeen wàññal nu kenn mu ne leen ci àddina yi bépp Sénégal rek laa gis taxi buy jël loolu ngeen ne ko taxi Sénégal yi mooy yi amul compteur mhm. taxi bu ñu koy wax compteur a tax taxi bu am compteur du jël ñeenti nit mhm. li tax compteur ya dañ moo tax ñuy jël complet parce que taxi boo fi topp ci gannaawam ñu arrêté ko la lay wax ne ah, taxi yi normal ñu mooy kay wax ak ñoom day sëgal boppam ca fenêtre ba waa ji day wàcce weer moom mu sëgal boppam. am na lu ñu wax. Mm-hmm. mu ubbi dugg mbaa mu arrière dellu gannaaw waaj a dem. kon mm-hmm. waxaalee fa ne. Mm-hmm. waxaale nag moo tax ñu jël ñeenti nit loolu ngeen koy xamal. ba xam moom ban solution la ci am. di ñu def nag mooy tali bi ak pneu yi xam nga xam nga congaan. waaw peu de fan yële passé déggoon naa ngeen di ci def ay ndaje bi ci waxtaan ak benn waay boo xam ne bii moo fi toogal ñis ne ca ca jam ñaa xamul ci yoon wa noone daal non non de l'avenir la waaw autoroute de l'avenir waaw mooy seen paa seen nit ñaa nit ñaa ngi dee ci autoroute bi li ñuy fay kenn xamul nu mu toll gi foo ko takk passé na te diggante péage boobu boo jëmee Thiès foofu ngay fayee téeméer la woon ba muy doog ubbi dañu xëy xëy rek def ko ñaar téeméer. jógee nga ci pënd bi yaa ngi ci tarif bi de. waaw dama dama yaa tudd autoroute bi rek ngay tudd ko avenir xaw ma lan ma wax la ne la du avenir. waaw ja jagul léegi pënë bi nag. waaw. gis nga pënë. Mm-hmm. liy problème am pënë dafa bokkul ci oto. Mm-hmm. wax bu doy waar la nag. waaw dégg naa fi ngay wax dégg naa fi ngay waxee. mais pënë bokkul ci oto. Mm-hmm. moo tax mu nekk loo xam ne lii dafa dafa dafa doy waar ci oto. Hmm. pneu ak carburant dañu bokkul ci oto boo gisee boo gisee oto bu buñ la koy jaay kenn du la garanti pneu yi ku lay jaay oto du garanti pneu yi. Hmm. parce que defaru ko. Hmm. waaw kay euh, pneu nag ak nawet yu baax moo baax yoo xam ne yii iisewul. waaye pneu bu iise ak taw moom. jàmm ngay am rek mën a àgg fa nga jëm waaye boo amul saas lool. Mm. booy freiné rek mën ngaa wëndeel. dëgg la de. Mm. mbaa nga dem mbaa nga dem ca mbooy ga. Mm. kooku moom kenn tanewu la ci. pëne yi nga gis nag pëne yu mel nem nen moom munta ànd ak munta ànd ak jàmm. waaw loolu de moom benn war benn war. kon nag pëne yi moom. Mm-hmm. nañu ci taxaw. Mm-hmm. pare-brise itam dañ cee war a taxaw. Mm-hmm. bala ngaa wax bale yi nga wax ci pare-brise bi. pare-brise bu toj ba mokk. am yoo xam ne sax ñeme nañ caa taf eh, ay ay ay kol. Mhm. kooku xam nga nag bale mënu ca dara. am na am na ci li maa mataari de. bu amee usure sax du baax. ah waaw léegi nag bu pare-brise bi baaxee bale gi baax da nga mën a gis. Mhm. lamp yitam tàkk xam nga xam nga boo gisee fii tubaab yi dañu dem ba mujj yàgg ñu xam ne accident yi di am ci tali li mataar wax sànq tegi pëna ak tegi nangam. Mhm. ñu ne lii doxut xam nga lu ñu def ay bande la ñu jël yoo xam ne day wër camion bi yëpp bu dee 18. bu dee biis yi dañ ko koy defal mu wér ko nga xam ne biis euh, lampe euh, kii bi bànd boobu foo toll loo ko sori sori rek bu lumière bi tegoo day day daal mhm. lu ko mhm. lu ko lumière bi laal rek nga siyén ko mhm. waaw léegi nag loolu ñun lu tax mun ak si ci ñun ñun daal ñun fan toogoon lan toog congaan am naa daal maa ngi yàgg ci antenne bi te yëf yu gudd. te am mais mais mais Malick Malick li nga wax dafa am solo trop te xam nga ci loolu parce que am ci Europe ak te ko fii si réew nawet lañ jëm. dafa dafa yomb. manaar xaw ma congaan dafa yomb pour ñu indi ko ci réew mi mais dañ koo jéemut. Mhm. suñ ministère de transport yi nee naa la ñoom ak gouvernement bi amuñu soxla ci transport mhm. amuñ ci soxla. transport mooy li ëpp xaalis ci àddina te nee naa la amul menn réew muy développé du transport ko développé. Mm-hmm. amul ay njàng yëpp dëkk la. Mm-hmm. mais fu lekk dem transport ko fu yóbbu boo bayee transport. Mm-hmm. li ñuy naan transport lépp ñuy liggéey transport ñuy jàng transport. waa transport nag nan la mën a dese gannaaw. kenn faale wu leen. léegi euh, maa ngi doon xalaat sax da ngeen wax ci xaalis bi ñu doon séddale yooyu. non xaalis moom xaalis moom. xaalis bi dégg nañ ci am. xaalis non moom fu mu nekk ni nañ wax nañ wax ci li nga gën a mën wax ci li nga. nuyu kii Alaaji Ndonga Fall. waaw Ndonga Fall waaw. mu sànni ma xeer waaye la am solo. Mhm. <laughs> du ñàkk man nga ma ñàkk man turu dëkkam wala yàq ja amul solo xam nga lu am solo. <laughs> waaw mooy mu la ma ca wax. la tax ma tudd turu dëkk ba loola daal bu fekkoon normal. moom mhm. loola dana ko weddi waaye weddiwu ko. mais mais mais nee na nee na ma dina def tout pour jàppale ci seen tali caamen ba de. waaye ban jàpp waaye man de càngaat teg maa bàyyi bàyyi sama tali bi léegi moom na defar taleem boobee góor daara ne ca biir dëkkam ba nga xam ne oto yi jàmbur yi fa lañ yàqu te amuñu signalisation. <laughs> ñu ngi def daal ndóog nga koy alaaji nga koy am loolu de sant naa ko nag ndax déglu naa ko keroog. mu wax ne moom am na ay nitam jël na leen nangam nangam boobaa léegi dégguma ku ko weddi xëy na nag na lu mu ca na nag lépp am na loo xam ne nag vraiment mën naa ko seede loolu moom am na lu bëri loo xam ne mën naa ko seede ci li nga xam ne moom laa def waaw xam nga man congaan Ah, man hmm. damay déglu su ma dégloo su ma déggee damay déglu continuer hmm. dégg gu ma ne kenn ku ca weddi dara ca lam wax xëy na nag mën naa am matut hmm. waaye daal am na lu mu def jërëjëf ala jërëjëf jërëjëf Malick Thiam Malick Sall Thiamène <laughs> euh, na ma daal bàyyi jël keneen embouteillage boo bëgg ñëw ñu laaj. Malick phénomène la quoi. <laughs> mais professionnel la nekk ci liggéey c'est un passionné loolu lay liggéey hmm. te xam ne ci li mu wax lépp xalaat la hmm. te vraiment bu sañoon euh, picc ngi ci kaw may xel maa ngi ci suuf ah, gisoo li mu lay woo ni mi ngi en cours ngi am Sénégal ah, ah, dem na hmm. euh, waaw euh, da nga ñëw ci embouteillage rap ma lan moo ko di parce que man xool naa ba sonn xaw ma lan moo ko war a mën a causer waa xam nga li ma ci jàngat man Sénégal moo am plan de circulation Sénégal nii muy doxe tant que mi ngi doxee nga dégg ñu la état am na perte deux cent milliards ak gën a yokk mais du wàññiku saa te système baa ngi demee nii. te plan bi da ko jox te indiscipline aussi tamit jox dugal ko. loolu bala nga wax indiscipline ñun dëkk yu nu ëpp oto ngi am ay oto di dem ak ñëw foofu ëpp nu dëkk. ñi bëgg a bokk ci émission mën nañu woote ci. 88 kon suñu demee ba suñu oto yi. may ma 88 628 98 98 waaw yàgg la. kon suñu demee ba suñu oto yi mënuñoo dem mënuñoo dikk waroon nañoo jàngat lan moo ko téye xam nga dañ daan waxtaan ci circulation. avant la di xew bu jafe-jafe amee dañ ñu daan woo nu toog waxtaan ñu ne lii lan moo ci solution kenn ku ne génn sa xalaat xalaat yooyu bu ñu dajee ci la ñuy dajale li nga xam ne mooy tane. lii am nii amul woon bu jëkk. taxul embouteillage jóge woon non jo jóge tane woon na. boo seetloo daawul mel nii. embouteillage Dakar moom. on oh, xam nga daa nga xëyee Pikine bala ngay dugg Dakar bii di jot mu dem ba loolu jóge fi. fii ne foofu lañ jëmaat di nga xëyee dakaar te Pikine doo egsi. est-ce amul yokk ci diggante bi oto yokkuwuñ. waaw même bu oto bi yokkoo. jàppal ni question bi ah, jàppal ni tali yi am na lu tali yu ci yokku bu jëkk benn tali kese moo fi nekkoon amuñu woon autoroute ci suuf rn bi léegi dañoo yokk ay VDN di yokk ci ay APS yokk ci yeneen ak yeneen ay raccourci am te amu bu njëkk kon su oto yi yokk yokk nga waaye bi nga yokkoo ba noppi da nga wut plan de circulation mënoo déployer ay camions boo nga xam ne ak i bu déparé xam nga loolu kii yéexuñu sax mais bu bu déparé ba sarse bu ñëwee ba freiné ba jóge boo mu jóg pour mu am développement diggante bi sans oto fekk na ko fi mu taxaw nga bëgg koo boole ko xëyloo ko huit heures six heures du matin muy daw ci télé bi jusqu'à ko Ndiaga Ndiaye yi jaxase ko camion yi moom dafa am heure boo xam ne interdit leen biir Dakar. de dama ni amul heure bu ñu circuler biir Dakar. mais waruñu daw biir Dakar de sept heures à normalement. congaan fi ma toog di wax ak yow boo taxawoon léegi amoon Cheikh Ahmad Bamba bi jëm centenaire mu am taxul mu nekk mu yoon déggoo li ma la wax ci tànku alkaati yi ak gendarme yi la ñuy retourné ak seen conteneur de camion remorqué yi di jàll te loolu musul am ci Sénégal posé wu naa question boobu pour laaj ndax feuille moo marché wul wala alkaati yi ñoo doyul wala defuñu seen liggéey wala oto yi bëri wax naa la ko léegi wala tamit vraiment xam nga APS bi lu ko tax nii parce que njàpp mi dañu daw la doon daw ci suuf ñoom camion yi te yoonu yaraax gis nga ne mu mel fi mu nekk nii boulevard de la Centenaire xam nga ne route lu tëli léegi léegi ñi ci doon daw njàpp mi daw yëg autoroute bi di fay APS ñoom nee nañ li ñuy fay APS duñ ko ñàkk ci suuf dañ ñàkk suuf lu ko ëpp moo tax ñu jóge port ñoom ñëpp daw yéegi APS. mais avant APS bi. non dadul yoon. heure boobu mais avant APS bi ah, centre ville. waaw oto demul de oto dikkul. même fii. ci boîte boulangerie jaune et tout oto yi demul. waaw da ngay école Sacré Cœur ba remonté ci kaw mën nga fi def une heure pratiquement parce que demul. waaw parce que sensilatoire yi ñu defar. bu ñu koy defar ñi am ci xam-xam boobu laaj yu seen xalaat dañoo jël ay techniciens yu nekk. fanaan lan nga doon def comme proposition ci genre. non parce que mënuma ko wax fii. dama am loo xëy du leen ko waxee fii. parce que du jëriñ dara mais dañ koy dégg rek waaw fii danga nga ñëw toog bu fekkente ne am nga solution boo xam mën nga ko joxe ñu for ko parce que nekkuloo foo xam ne solution boobu c'est-à-dire que mënu ma ko wax li nga xalaat ne moom nga yaakaar ne moo do parce que ñi na déglu moo koy a am mhm. dafa am lu ko yàq yi ñu jëlee ci àll ba di ko indi Sénégal bokkul ak réalité Sénégal xam nga dama lay joxe un exemple fii ci rond point blanc juróom xam nga boo jógee euh, JVC di ñëw oto yi nga xam ne dañuy jógee JVC di ñëw ñu ngi jóg complètement à droite à gauche te dañu waroon jël à pour bañ a couper rond point bi ñii jógee na la gis nga est-ce nga ni ma la wax ñii jógee JVC ñu ngi jël complètement à droite ruelle pour ñëw ba ci rond bi dagg oto yi nga xam ne jógee nañu euh, fii lycée bi euh, collège bi dañ leen dagg ñu arrêté pour ñu ñoom jël giratoire bi ñeneen ñi nga xam ne dañu war a dem dootu ko dañuy dagg ñi nga xam ne ñu ngi jógee JVC pour jëli beneen côté bi à gauche donc c'est mal fait c'est solution ñu delloo ko jël bi nga xam ne moo nekk à jox ko ñi nga xam ne ne jóge nañu JVC euh, lycée euh, wàcc du ñu dagg dañ ñëw rek jël kii donc c'est solution boo xam ne yaakaar naa ne xëy na bu ñu ko defee mën na changer problème par rapport ci plan circulation mais il faut toujours donner des solutions xëy na sa solution mën na baax wala mën na baax mais ki nga xam ne mooy nga li bu tegale bu njëkk ba bu ndab la jiitu bu dëngee yeneen yi ñëw yëpp dañuy dëng. Mhm. bu doon ca départ ba woo nañu ñu mel ni yow mi ak xam-xam bi nga ci am ñu woo ñeneen ñu mu ëpp xam-xam ak expérience ñu ñëw ci loolu. Mhm. ñun bu ñu toogee waxtaan. yow nga génne xalaat bi boo demee am na benn waay bi denc xalaat boo nga xëy sax moo gën bi nga yor yow. Mhm. te bi nga yor baax na. man biir na ma ne baax na. mais am na boo demee ku denc sax bu gën boobu. ñu dajal leen. xel yooyu nag du doy su ko defee bu ñu dajalee ci la amee li ñu bëgg. Mhm. te li ma la wax ne yow xam nga ni Babacar Dione chaque année bu ma sant jub daan def daan nañ def ànd ak Ageroute. Mhm. ak Ibrahima Ndiaye ñoom toog di def lu mel noonu ay commission ñu xool ko. Mhm. tànn ko ñu seet circulation bi naka lañ ko a jaaree pour mu am loolu amatul léegi. arrêté nañ ko depuis huit ans. amul léegi su fekkee ni ci condition bii rek lañ fas yéene di dox. yow looy def yow kese yaay jël sa responsable defal ko sa bopp. yow amoo kenn koy constaté sa xelam bopp doy la yow nga wane ne may kilifa maa jiite maay dagg jën yu maa koy roof maay togg ceeb bi tam maay tax a di mat duñ la baag sab ceeb nga togg ko yow dong duñ ko def ñoom li ñu bëgg ñun mënuñu ko nit ki da koy intégré si mi ñu mu bokk nga ne ko kaay bokk ci ma ca wan ma ci li ci sa xalaat donte doyu la donte doyu la nga nga nga nga jël xalaatam boobu boole ko sa xalaat yow seet li nga xam ne moo la doy def ko waaw xam nga itam Ibrahima Senghor bu Sénat xam naa ne ci li nga xam ne moom la Euh, euh, Malick Sall wax léegi mu jëm ci autoroute bi xam naa la bëgg tontu mais malheureusement sama téléphone portable oote mais xam naa bu fekkente ne mën a jaar ci ligne bi rek wala mu xam exactement lan la euh, pour mu gën a leer parce que xam naa leeral lay indi rek ne affaire pneu yi nga xam ne ne ma la doon wax émission yi nga xam ne defoon nañ ko ak ñoom moom mu nekk spécialiste. waaye xam nga ni man man bëgguma sax dugg ci autoroute bi du suñ. waxuñu pour non Matar. non ci embouteillage lañ ci loolu. waaw lañ nekk. waaye xam nga ni lii am technopole embouteillage boo xëy quatre de temps dina ko am du bouché lan moo ko waral xam nga ko parce que rond point bi ni ñu ko bindee APS bi jaaduwul da ngay cëppee ci APS bi te loolu mhm. ba ticket ba noppi di wàccaat biir rond bi loolu nañu defar pont bu tiim tey technopole nga xam ne nga koy jéggi dugg ci Lobatt Fall dem Pikine dem sa yoon ñi jëm Géejawaay kon loolu ñu siwaat ci rond point bi di kar ñu jógee ci RN1 bi duñ fa loolu moo waral fi ne nii vingt deux heures ba vingt deux heures boo demee ci APA bi doo jàll léegi APA bi ci suuf gën a gaaw boo nee jaar APA léegi suuf ngay jaar. parce que doo wàcc da wut lu gaaw boo fa yéegee du too ca peen. loolu du APS APS pour fluidité la. dem la du pour taxawaay ak embouteillage APS accident rek moo fóor a indi embouteillage. mais tu ne trouves pas que ne oto yëpp dañ ko jëlandoo xool suñu APS yi ni muy tëddee. ñàkk te tenir de considération ci sénégalais yi ñoo waral dañuy ubbi ñaari gise ñett. ci fii day continuer ba Colobane. nga gis ñaari gis ñu ubbi muy national bi. Mhm. yow doo dem doo dikk. Mhm. mais pourquoi yow da nga may fayeeku encaisse suma xaalis. Covid 19 bi am ñëpp balancé wu ni nañ wàññi suñu tarif ñëpp ñu leen yéen kenn ku ne dagg nañ ne ci digg bi la waroon am du doog am mas ngaa dégg ñun la wàññi na naa. xam nga man dama bëgg am xam nga embouteillage yi ci biir Dakar la. Dakar lan moo ko causé am na ko nekk ci ligne bi ñu jël ko allo. waaw salaamaaleykum. waaleykum salaam. Euh, sëñ Thiongane maa ngi leen di Ibrahima. waaw man la Ibrahima Senghor. Ibrahima Senghor Ibrahima dama gis euh, Macky Sall wax ci affaire pneu yi rek nga dugg. waaw non euh, depuis début bi maa ngi maa ngi dégg. dafa am loo xam ne da ko bëgg a wax mu jëm ci pneu yi wala dafa am loo bëgg a leeral. waaw am na lu moo bëgg a leeral déjà de manière générale. Mhm. Euh, la mobilité urbaine au niveau de Dakar. Mhm. c'est un problème qui est compliqué et qui depuis des. des oh, oh, oh, wolof wolof. waaw donc mobilité urbaine bi. Mhm. li nga xam ne moom la ñuy nekk moo nekk ci Dakar. Mm-hmm. problème la boo xam ne problème bu yàgg la. Mm-hmm. maintenant oto yi gën nañ bari peut-être au tout au début rond-point yi ça faisait l'affaire. Mm-hmm. mais dem nañ ba jëm jëm jamono il faut repenser euh, il faut ñu xalaataat mobilité urbaine boobu noonu. voilà donc loolu moom je pense que ñi nga xam ne ñoo ko waa CETUD. comme comme ni euh, euh, waxee léegi plan de circulation bi il ñu xoolaat ko. foog ñu xoolaat ah, ko parce que oto gën na bëri. Mm-hmm. ba pare en plus am na leen lu ñuy euh, mooy occupation anarchique bi nga xam ne moom la ñuy jël trottoir yi tamit bokk na ci li nga xam ne tamit dafay yokk. xataay bi mais mm-hmm. loolu am na ñu koy ñi koy xeex temps yi fu mu nekk nii vraiment waaw. mais teewul saa jëlee. ñenn ñi fii am mm. feneen la ñuy dem mm-hmm, mm-hmm. am ñoo xam ne pour ñoom bu ñu demul ci tali rek du ñu taw mm-hmm. loolu wax dëgg yàlla war nañ ci waxtaan ak suñu mbokk yi nga xam ne ñoom ñooy jaay ci kaw tali bi c'est dangereux ba pare et que tamit euh, je pense que marché la ñu war a li lañuy war a jaayee euh, Ibrahima waaw euh, am na retour foofu sa rajo boobu noo ko fay ndax mu gën a leer parce que pour fay naa ko voilà tout voilà continuer waaw donc loolu je pense que euh, ñi ko xam ne ñoo ko war a mooy ministère de de l' intérieur. Mm-hmm. ak euh, ñi nga xam ne ñoom ñooy ministère des transports war nañ soo toog xalaataat ci bu baax pour gën ko defaraat. Mm-hmm. parce que mobilité urbaine bi tant que muy bu fekkee ne doxul dafay répercuter fépp bay dem day répercuter ba ñun suñu autoroute bi. Mm-hmm. parce que ñun d' suñu bretelles yi sorti sortie euh, moom mooy moom mooy indi kii bi bouchon bi sortie bi mooy problème sorti bu amee problème rek. rond point yi sorti bu amee problème la ci day répercuté remonté benn bouchon boo xam ne day gudd. donc ah. loolu mooy faral di indi embouteillage su ko lu embouteillage beneen bu dul bu koy indi moom mooy mu am accident ci yoon bi te bu amee accident ci yoon bi fi nga xam ne foofu la ñu war a jaar pour dem intervenir mooy ci bande d'arrêt d'urgence bi foofu noonu tamit gars yi dañu koy jël ba mu fees loolu mooy waral intervention yi parfois di yéex mais ñun dañu am ay euh, règle boo xam ne dañ koy respecté à chaque fois bu koy intervenir normalement 20 minutes. balaa vingt minutes dañu war a ñëw yegg si si intervention boobu noonu. bu fekkee ne am mais mais Ibrahima. waaw des fois mu am bouchon caaroy ba Padois. bu euh, des fois mu am caaroy ba Padois. waaw caaroy ba Padois te amul amul benn solution boo xam ne depuis des années enfin depuis des mois day am. te tu essayé leen trouver solution wala vous êtes en train de travailler pour am trouver une solution pour régler problème boobu. wala yaa vous pensez que ne Cambérène mooy indi problème boobu. Euh, non bu fekkee ne ça dépend si ban sens ngay wax. parce que bu sens de Dakar à Thiaroye. Dakar Thiaroye voilà sens euh, Dakar Thiaroye bi d'habitude après midi bi lay mooy bu nit ñi di wàcc. waaw mhm. heure boobu lay nekk te heure boobu li koy faral di ko indi moom mooy ci réseau extérieur bi moom mooy am bouchon mooy rond point euh, poste Thiaroye bi noonu. waaw mooy waaw foofu jafe-jafe lañ ci am à chaque fois dañuy gis ne oto yi dañuy càng foofu noonu. Mhm. te loolu aussi foofu noonu c'est vrai que amoon indi nañ solution rek si pont bi mais pont bi ça règle pas tout le problème. mais est-ce que mënu jël ay cône teg ko noonu pour oto yi nga xam dañuy dem Thiaroye mën jël boobu ku ko jël te waroo dem Thiaroye boo ko jëlee continuer directement pour non am na ñun ah, xam nga tey euh, ñun fi ñu mën a suñu daa am suñu maanaam suñu li ñu moom. Mm-hmm. foofu rek la ñu mën a yem. rond point bi mu ñu fa yegg. rond point yéen yéen seen kii mooy commencé ci péage bi. waaw mu ngi ci mu ngi péage bi foofu la yem leneen li sax euh, waa police ñoom ñoo koy gérer te li nga xam ne moom moo kii foofu gendarmerie moo koy gérer donc foofu tamit euh, man nag parfois damay wax ne fokk ñuy waxtaan ak entre gendarmerie ak police. pour gën di mën a xool sortie yi nga xam ne moom mooy suñu problème sortie boobu du c'est pas boobu rek mooy problème sortie aussi euh, sédiment bi aussi problème la. Mm-hmm. donc loolu mooy faral di indi muy am ay ay bouchon ci ci sortie bretelle ci bretelle yi. Mm-hmm. voilà pneu yi nga xam ne tamit ñoo nekk ci autoroute bi. Euh, mm-hmm. pneu yi nga xam ne ñoom ñooy euh, mooy camion yi ne ñoom ñooy am problème pneu ci autoroute bi tamit loolu problème la depuis daaw. depuis des années peut problème la mais daaw lañ ci gën a commencé insister. Mhm. ren aussi tamit ñu def ci benn campagne bu am solo boo xam ne ànd si ak waa Sud FM. ak ñëpp ñu mooy ak waa Michelin. Mhm. mooy waa Copedex. Mhm. donc mu nekk loo xam ne aussi euh, communication la mais xam nañ ne doyul. voilà Covid bi nag boo ñu xawoon tey mais incha allah dinañ continuer di communiquer di waxtaan ak suñu mbokk transporté parce que ñu ne ñoom ñoom benn lañ. Ibrahima. waaw foo leen toll ci éclairage bi. si éclairage bi. éclairage bi xanaa gisoo yow gëj nga romb si ci déedéet man dama koy régulièrement yéen kay fi mu nekk nii di ngeen ma def restaurant non déjà déjà euh, commencement liggéeyu euh, bretel yëpp ñu ngi leen di éclairer mais dama gis seen tableau yi rek ngeen wax ne ne éclairage may gisaguma wala jaaragu fa guddi boobu non instant bi dañuy ñu ngi si ñu ngi si liggéey bi ñu ngi ci liggéey bi hmm. mais taxawagul lépp taxawagul kon tàkkagul tàkkagul hmm. mais incha allah léegi yooyu yëpp taxaw parce que euh, defar commencé nañu ñun déjà Euh, man rek am na liggéey bu ma def ak ñoom. pour mhm. euh, wàllum sécurité routière bi. Mhm. léegi euh, ñoom instant bi guddi gi la ñuy faral di liggéey. Mhm. donc aussi diggante wax kër caaro yi ba Kër Massar dañ koy éclairer. donc loolu incha allah léegi léegi moom kenn du ko waxati. au fur et à mesure nag. noonu lañ noonu la ñuy fas yéenee liggéey parce que je sais que ni. ñun askan wi rek lañ fi nekk. donc loolu moom leer sëñ Matar maa ngi lay ziar bu baax. Matar son Matar son problème mooy tarif yi waaw tarif tarif bi moom wax dëgg yàlla man awma ci xam yokk ci li ma wax yokk ci li ma wax dama kon ni depuis covid bi amee oto yeeg ñëpp dañ leen a wàññiloo seen prix mais APS moom lam doon fay ko da koo yokk wàññiwu ko wax ko li ma wax <laughs> da koo yokk wax defalu leen Sénégalais yi dara récupérer seen xaalis donc ngeen def dugal leen ci embouteillage fii ne nii jaar ci APS bi jaar ci suufu gën foog nañu waxante dëgg xam nga ne embouteillage bi yaa ngi koy wax rond-point Kër Massar la fa xew jaaduwul saa yoo jëlee APA bi jëm Kër Massar digganteem ak Thiaroye 1000 francs nga fay ko ba noppi fanaan ci àll bi yenn fa teewul fenn foofu li ngeen fa am ci ab distance war ngeen a mën a yéeg APA bi wàcc Kër Massar te doo jotee ki ne ci suuf dara. bàyyi ko mu tontu ñu dem ànd ak moom. waaw je pense que embouteillage yi euh, yi ngay wax noonu bu bouchon yi ngay wax nii yenn heures yi rek la c'est pas tout le temps lay am embouteillage et que loolu on on on comprend oto ñoom ñoo bari oto yi bari nañ bari boo xam ne tey euh, autoroute bi euh, waxuma munu ko contenir mais euh, bari nañ bari nañ trop et que aussi tamit yenn indiscipline yi nga xam ne moom mooy faral mu li koy gën a exacerbé moo koy gën a yokk donc yooyu aussi tamit war nañ ci waxtaan ak chauffeur yi voilà. Ibrahima ñun waaw. waaw dafa am looy dolli. non non man kay. fu nekk ni li mu li mu la laaj moom doo ci mën tontu. non mënu ma ci tontu loolu je sais doo ci tontu moo tax fu mu nekk ni nga bëgg daaneel ñu ma nangu la loolu. <laughs> sama domaine waaw. <laughs>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 00 20 xaar ba oto bi lay lëng agsi sori tali durub li ngay xaar si ginnaaw glissière yi oto bi lay lëng ànd ñun ñëpp def li war si biir autoroute de l'avenir autoroute de l'avenir ñooy ànd ak yéen seen émission kaaraange yoon 88 628 98 98 bu fekkente ne Alioune Badara amul sa auditeur bu nekk ci ligne ñu jël ko après doo ñëw ak euh, euh, Matar allo waaw mon ami Diongane euh, kooku Abdoulaye Eh, Ablaye Diop Ablaye Ablaye Ablaye dam na mën naa la. Ablaye Diop maa la maa la raw ñu ngi leen di ndokkee si koor yi ñu génn. waaw waaw ñu ngi lay fay. Euh, merci di leen ñaanal maa ngi leen a dugg na na. waaw c'est effectivement effectivement. <laughs> mais comme que léegi nekkatu nekkatuloo yëmbal. ne ne nekkatuma gàddaay. gàdd gàddaay waaw nekkatoo gàddaay. parce que léegi ki Senghor boobu génn léegi. waaw Ibrahima. Ibrahima ne autoroute bi Sénégal yi la ñuy liggéeyal non je pense que. seen bopp la ñuy liggéeyal quoi liggéeyal Sénégal yi quoi. ça ça ça c' est la triste réalité. Mhm, mhm. te te plan bi gis nga li am croisement Keur Massar. mu mhm. am croisement Cambérène ci autoroute. mu am sédiment. autoroute sortie autoroute mënul coïncider ak entrée autoroute c' est pas possible. mo mo c' est la même chose moom mooy sortie Pikine bi rond-point bi foofu. loolu erreur la erreur bu rëy rëy lañ def parce que sortie autoroute ak entrée autoroute da dañoo war a distancé. c'est moo jege autoroute bi. waaw mu c'est ça mais il fallait ñoom moo leen génne avant avant rond bi. avant rond point bi la ñu génne. soo soo sotti. du jotee dara ak ñi ñi ñuy duggee kii bi ak ñi wër rond bi yëpp pour dem dem dem dem fële. c'est ça la ñu war a def mais même même Pikine c'est ah source bi dafa waroon nekk ah, ah, avant. bon mhm. oh, ka Cambérène Cambérène fi ñu ko def source bi baaxul. Mhm. baaxul dafa dafa waroon dafa dafa waroon génn parce que embouteillage bi am foofu mais mais mais mari day mhm. bon beneen bi mooy man li ma bëggoon ñu wax mooy le carburant quand est ci Covid bi. mais man mais même Covid mais Covid bi. gars yi. même sans Covid ne pétrole wàcc na. subvention yi ñu war jox nit ñi population yi joxuñu ko nit ñi. Mhm. loolu moo tax ma euh, quand le ministre de de de l' économie xaw ma kan op di wax ne le Sénégal ne ne connaîtra la récession c' est normal ils n'ont rien dépensé. Mhm. sur mille milliards ils ont dit que trois cent et quelques milliards lañ dépensé. pour il faut il faut il faut il faut le voir pour pour pour pour ko. pour le privé. mais mais voilà maa ngi dégg léegi moo tax ne ces subventions yooyu ñu leen destiné woon da da siy dégg rek mais mais non. non moom ma jotul dégg rek lañ ci am ah, dégg. mais c'est ça te problème bi mooy man je comprends pas. non non mais mais Ablaye Ablaye Ablaye. takki am naa ci subvention yi cinq cinq cinq boobu. waaw li ma xam ne mooy am na benn date boo xam ne pour inscription ba xaalis mënul génn parce que fi mu nekk ñu ngi bindu léegi fi mu nekk dañ ko prolongé jusqu'au vingt suba le vingt. léegi bu jeexee nag lañ mën a identifier ñi nga xam ne moom lañ ko jox waaw. non non Ablaye Ablaye Ablaye. ba baal mu yegg Ablaye baal mu yegg. Mm. may ma la nga juum da dëpp ñu wax la. Ah, ah, absolument may ma tuuti ma expliqué la parce que pièces yi ñuy laaj. téléphone la nekk mooy fay yow fayuloo ko. bàyyi ko mu yeggali ba pare nga da may ma. waaw non non vas-y vas-y ba demal demal après moom mu door tontu. waaw c'est-à-dire euh, boo nit ki boo koy dimbali da ngay gaaw si dimbal bi mhm. parce que boo nee kii bii lépp nangam dam dinaa la subvention subvention boobu muy ñëw pour euh, euh, compléter li mu waroon de mhm. yàpp mhm. mais tere nga ko loolu joxoo ko subvention mais loolu c'est pas bon te nanu wante dëgg carburant bi dafa yàgg baissé mais ba léegi on paye le même prix loolu dañ si dañ si war a jóg tarif euh, euh, à euh, péage bi dañ si war a jóg hmm. même le président il est contre dafa bëgg a wàññi ko hmm. mais mais mais le président lu mu bëgg mais il n'a il n'a qu'à le faire il n'a qu'à l'imposer hmm. nanu nanu rompre nanu revoir le contrat de de de de kii de autoroute bi il se sucre sur le dos des Sénégalais c'est ça la vérité il travaille pour les Sénégalais mais il se sucre sur le dos des Sénégalais waaw te te aussi projet tali comme tali yëmbal bees yooyu mais depuis léegi kenn liggéeytu dafa woon dara. suñ toll loolu Covid moo ko moo ko arrêté. waaw mais dinañ dañ cee beneen émission waxtaan ci. moo tax tey dugguma ci tali beeg yooyu dama bëgg ñu ci hivernage bi ak embouteillage yi. parce que bu ngeen taxasee waaw parce que gis nga gis nga point GVC moom ngeen di wax noonu. parce que il faut que ñu def pont foofu. autoroute pont yi dafa rëy foofu yaatu na dafa war def pont. parce que moo koy dimbali. waaw ñi ñiy dem ko continuer direct dem si kaw. ñi ñi ciy wër rond point bi génn dem si dem seen yoon hmm. donc man kaw Matar ñoo wax ne les ingénieurs là euh, donc euh, dañuy def liggéey boo xam rek man je suis d'accord avec lui mhm. parce que xam nga lu réalité ñu def quoi ni ñu def dañuy def. Mhm. benn projet def ko euh, de de de bout te projet da ko war def de façon intégrée. Mhm. global pour régler ce problème la loolu mooy mooy régler problème circulation bi mais li muy li ñuy li ñuy vivre si si si circulation bi mais métti na. métti na. jërëjëf Ablaye jërëjëf ci sa intervention kontaan toujours rek ci yow euh, xam naa ne ñaari point yore ñoon wax mais Malick Sall nekk na ca Italie ci jóge Allemagne di nekk Italie envoyé ñu aussi tamit autoroute à bi mu nekk sujet boo xam ne ne intéressé ñëpp te dinañ ci dellu soit aussi gën ko yaatal parce que tamit dañu oo Ibrahima Senghor moom mi nga xam ne spécialité sécurité routière nekk foofu tamit dina ñëw toog ndax mu di auditeurs yi ñëw poser kenn question am na loo xam ne mënuñu ci laaj mais kii di régler problème bu tarif yi bés bu ñu ñëw fii na ànd ak moom parce que tamit allo. allo Thiongor. waaw. maa ngi lay fay. sant bu baax kooku. ah. Maxaw. Maxaw. Eh, déedéet man Pape Diop Pape Diop. ah Pape Pape Diop Diop Diop. Pape ñu ngi sant bu alhamdulilah. waaw. ma bañ a yàgg ci ligne man je trouve que Pikine Thiaroye Kër Massar te yooyu. Mhm. man sama xalaat bu gàtt. Mhm. comme ñoom dañuy créer embouteillage sax même bu ñuy wàcc. Mhm. pour par rapport ñu dem aéroport sax est-ce que du woon gën. Mhm. ñoom ñu am fu ñuy jënd ticket avant ñuy dugg autoroute bi nga xamante ni dañ ñëw rek boobu nekk nga xam ne dafay yéeg. Mhm. ñu gaaw ak jënd foofu. boobu laa ci amul xalaat. solution la waaw beneen bi mooy. affaire pneu yi ngay wax. gis nga pneu. lu mu baax baax baax baax am adhérence. bu nawet xasee jot. mooy li nga waxoon sànq huile yi fa doon tax. Mhm. day régénéré. Mhm. moo tax sax maa ngi ciy sensibiliser waale borom moto yi scooter yi. Mhm. bari na ñu ciy daanu ci nawet mooy ëpp sax boo demee hôpitaux yi dañ la koy wax parce que seen pneu yi ñoom ni mu bindoo bokkul ak pneu oto. ñooy gën a gaaw a sax gën a mën daanu ko oto. donc li ma ci xalaat mooy oto yi bu looytee rek ak pneu lu mu baax baax dawal nànk. beneen bi aussi mooy camion yi man mhm. daal li ma xalaatoo mooy camion yi dama yaakaar ni seen euh, triangle yi dafa ndaw par rapport ak camion yi. Mhm. ñoom dañu ne waroon seet beneen solution wax ngeen seen seen triangle yi. bu tolloo camion bi. ah wala même bu tolloo camion bi mu tolloo nga xamante ne boo demee dans les chantiers. Mhm. fan yooyu waa gars yi di teg naan la si chantier déviation. waa télé bi rétrécissement à droite wala yu mel noonu la ñu am parce xaj na seen camion yi. nga xam ne su dara xewee hmm. laa lu ma wax jërëjëf Pape wax nga lu am solo euh, pose nga tamit problème mu jëm ci autoroute bi ak pneu yi nga xam ne wax na gis nga pneu yi ngay wax ni nee na huile bi pour scooter yi mais scooter yi sax danger la ci nawet bi noor bi parce que suuf si suuf si bu fekkente ne nga tur te ñuy dawale moom mën na leen glisser euh, Matar euh, nga bëggoon intervenir ci li nga xam ne moom la Ablaye Ablaye Ndiaye doon wax d'abord avant ñu jël benn benn leeral rek laa ci am tuuti li nga doon wax dama dégg nga ni ma bu laaj nañu pour ay fu ñu yóbbu seen kii nangam document yi ñu laaj benn document kese représenté na document yépp nit booy dem yóbbu ay da nga ñu xam licence su taxi ci la carte grise bi nekk si la licence bi nekk si la numéro borom auto bi nekk ci la numéro oto bi nekk ci la tout le pièces complètes wu oto bi ci la ci licence bi la nekk ñoom bu ñu ko xamul nañ lire licence bi gis ko euh, kon looy laajati yeneen pièces diggante ak ajjuma tey bi lan moo ci mën a changé ne toog nañ bureau directeur mu wan la document yëpp amuloo intervention bi nga li nga wax nii waxoo ko woon xanaa xamoo ko woon wala lu bees la. ci même xam ko mais aw ma woon temps ko développer. waaw parce que tamit man li ma bëggoon ñu toog ak ministre bi ba muy laaj loolu ñoom ñoo ñu tënk wax noonu ministre bi ci boppam de ak directeur am ñoo ñëw lépp lu ñuy tënk ci transport bi dee ñu leen woo ba ngeen ñëw ñu toog ak waxtaan ci ak ñoo ko wax. ministre bee ko wax ak i directeur am keroog ba ñu koy tënk dañu mi ngi nii ay bataaxel lañ ñu yónnee defar seen document envoyé ñu ko par whatsapp. xam nga man bu fekkee wuñu yëguñu. xam nga xam nga man. bu yàqoon dañ naan ñu fañ ko xam nga man damay faral di wax chaque jour ne waaw waawu transporteur wala chauffeur bu premier bi compté wul deuxième day compté. Eh, bul wax waaw bi maanaam ministre bi ci boppam ñoom seen jëmmi bopp ñoom la seen i waaw. compté wul parce que nit ki mënoo ko ni demal xaar ma mu toog la xaar nga teggi. Matar dama toog nga toog directeur toog mu la fichier bi nga oo sa benn waaye won ko fichier bi et tout. ba li li ñuy remplir pour nga jot xaalis. daawul tam parce que boobu boo ma man nga lik la indi ma man ma taa jóg teg ma ma wan benn pièce bu bu remplir yëpp. waaw xëy na du tam émission bi ñu dellu soit léegi. Ah, li nga xam ne ne moom mooy euh, embouteillage lan noo ko fi jëlee parce que waxtaan ñu jot pratiquement li ci des bëriwul. man embouteillage li ma la wax léegi nii la dañoo faussé suñu départ. boo dëkk bi mu situation dëkk bi ñu yor fi mu nekk nii yow toog nga fii ba taay naan rond point yi dafa yaatu dafa yaatu dafa yaatu. Mhm. ñaata yoon nga ko wax ci émission. Mhm. congaan mhm. congaan mas nga gis ab rond point bu ñu defar ba noppi def ci ay passage anonyme wëlbatiku wëlbatiku defalaat ko ay feux rouges loolu fu ngay jëkk xam ne ñii ay cuune ci li ñu def parce que wóobu ñu ñu xam ñu wax leen. man de xaw ma ndax li may xalaat doon la wala noonu mais ànd naa ak yow ci loolu ci plan de circulation bi am na point yu bëri yoo xam ne ne gis nga. rond point giratoire oto du ko dagg. stationnement yi képp moo jëkk jaar di yoon. yow da ngay xool ci digg rond point ñu def ci ab gare routière. xam nga xam nga dañuy même bu dee taxi la wala njëriñ jaay amul droit def ko. xam nga mataar bu dee clando amul droit def ko. mais ma ci rond point giratoire. oui dañ ne ne priorité à l'anneau. donc ki nekk ci biir moo am priorité. waaw nga bëgg ko dagg. boo ko naree dagg aussi embouteillage la indi. donc moo tax ma ne d'accord naa yow ci plan de xoolaat ko et puis mun mun nañ dindi parce que gis nga en général. benn oto moo nekk ci biir ano bi bloqué yëpp te pourtant mënu nañ changé loolu dindi priorité bi daa àll danaa lanu waaw congaan xam nga lu indi embouteillage bi nekk caaro yi gisoo commissariat bi porte commissariat bi ak centre centre sectoriel bi bi ñu def mbaar lañ def installé fa garage clando ci kaw rond point bi te police a ngi taxaw. xam nga boo def émission bu mu jëf doon wax clando. non nekk congaan nga xam nit ñi war a dem nga dikk installé ab clando. ci classe foofu yow yow sa problème clando la. du problème man mu daw mu ñàkk daw amul dara concerné wu ma ci. si si man liggéeyu ma ci loolu. déglu ma yëgale rek. si non boo demee yëmbal tournant yëmbal gis nga na mu mel. oto yi dañuy taxaw ñi yab jëm Malika ñi yab jëm route de Boune foofu waroon am garage stationnement parce que wàcce dem la waroon am mais mënut a nekk parce que tali baaxat bu oto yi bu ñu wàcce ci kaw goudron bi lañ koy wàccee amul benn espace. léegi embouteillage foofu tali bi moo ko. dafay bloqué. moo tax na amul ah, kay bu bari. parce que da gis koo nga xëy day yor xottu oto kese ñëw wëndeelu taxaw fa di xaar ba fees ñëpp bloqué wu ba Caaroy gaar wala bloqué ba Malika mu toog di xaar ab yab tam li ma jaaxal ci tànki alkaati yi la ñuy freiné te amul saafara ñu dund ko lu mat ay depuis mille neuf cent nangam ba nëgëri ci loolu la ñuy dund congaan dëkk ay autorité koy yor teg ko ci dëgg Matar joob bu ñëwee bëgg a jalgati yoon ñun ko hee bu ñu fontoo awal yi ñu la jaarloo nga jaar fi respecté li nga xam ne moom lañ la sant ñëpp ñi nañu war respecté dogal yi nga xam ne moom la ñuy jël te kilifa yi di ko jël buñ ñee dogal bii nañ ko def man ñu ngi ne bu ñu trois places yi lu ñu wax dama leen ne nañ respecté dogal bi kilifa gi di jël ñun nag buñ toogee kilifa gi dañ ko wax ne ko dogal bi soo ko jël defal nii ak ñun yow laa wala nga wax. non dañu war a respecter ñun dogal yi nga xam ne mooy wàcc bu ko ministre intérieur waxee wala ministre transport wala ku mu ñu respecté ko. waaye ma fekk ñu jox la demi naa ñu woo la ma fekk ñu woon la document nga ne waaw génn bi ne baaxatul. non koy dogal fekkee ma ko ñoom ñoo ko dogal te woo leen kon euh, woowuñu nu nawet baa ngi ñëw yàlla yàlla def ñu fekkee ko jàmm génn ci ak alhamdulilah Sénégal naat ñëpp génn ci. li nga xam ne moo moo ñu gane si gan boo xam ne kenn bëggu yàlla dem ak jàmm euh, na dem jàmm bàyyi ñu fi euh, nawet baa ngi dugg li nga xam ne moom lañ ci waxtaan lépp pour aar ñu bopp la nañ ko respecté li nga xam ne moom la wax dem yegg nga jëm ak ndànk dellu si waat euh, embouteillage bi ku nekk nag am nga ci responsabilité yaa xam sa responsable fu mu toll. na nga fexe ba nga xam ne ne bu ñuy wax duñ ne yow la nañ fexe ba nga génn embouteillage nit ñi dem ak jàmm parce que tamit embouteillage bi wax ma état bi dina perte ñun tamit dañ perte en carburant parce dem te yéen ci boppam yi nga xam ne yéen transport doo leen mën a liggéey euh, waxtu bi jot na ñu doon def émission bi ak ci taayu Matar Diop révolutionnaire di syndicaliste président national union bu la ci banti transport euh, ci technique bi ak réalisation bi Aline Badara Sow sama fa nekkoon Euh, balaa may tëj nag dafa am loo xam ne bàcce siis wax na ma ko. Hmm. restez chez amatul mais restez vigilant nee na mën naa téye restez bi donc bàcce siis nuyu nañ la hmm. présentation Mamadou Thiongane dina ñaanal jàmm di ko sàkku ci yéen te dinañ jox ndaje beneen yoon.